je maa ngi sant yàlla bu baax di gërëm magi dëkk bii di dëkk Ngoundiane Dior ak dëkku Samel yi nga xam ne ñoo ñu teertu tey dañu ñëwoon pour jébbal leen rek ñaari e, école yi nga xam ne dañ ko tabax pour tout tànk yi xale yi nga xam ne dañuy doog a fer ba ba ñuy dugg école yàlla def bi ñu ñëwee fekk ñu def ñaari mitin ci ñaari dëkk yi mu fees suñu xol lool ma ciy gërëm bu baax jigéen ñi boo ñëwee fii Dior ma ciy gërëm la présidente Astou Dione mais également la ajaratu astu ñi ngi kii euh, sëy ñi ngi conseil municipal nga xam ne dafay jàppale jigéen ñi lépp loo xam ne jigéen ñi soxla nañ ko mi ngi ci waaye saamel ma ciy gërëm la présidente Khady Dione euh, Rokhaya Thiaw Yomar ak Ndey ñi toutes les femmes yoo xam ne ñoom ñoo jàpp pour centre boobu taxaw boo gisee ñu def ko nag parce que dañu xam ne xale mooy màgg ëllëg te xale boo bëggee ëllëg mu nekk royuwaay da ngay def ci moom xam-xam lépp loo xam ne yaakaar nga ne ëllëg Sénégal war na ko mën a am pour cadre mi ngi ci xale te yàlla rekk xam kon xale yooyu muy ku góor ki muy ku jigéen ki dañ leen war a tàggat ba tax na conseil municipal bi ma jiite ànd ci ak Yipande ak Mbaye Sarr dañu jël éducation boole ko ci yi ñu gën a farataal muy priorité conseiller bi jàppale ñu ci ku mel ni Amitine di conseillère bu brave di ki njëkk a ubbi centre euh, d'éveil fii ci Ngoundiane ak maire Astou di ñoo xam ne véritablement ñu ngi leen di gërëm parce que véritablement bu jigéen amee sañ-sañ mu Ngoundiane c'est parce que véritablement seeni leader dañu am audace donc vraiment centre yi ñu def ci bu ci nekk valeur bu treize millions maanaam fukki million ak ñett mu am ñaari salle de classe am bureau direction bi waaye am mur de clôture. waaye yemunu foofu dañu indi équipement table banc ak buromètre ay basang yoo xam ne xale yi dañ ci toog mais ak matériel didactique waaye des na parce que boo déggee li jàngalekat bi wax di Marème ma koy gërëm bu baax soxla nañu ay aire soxla nañu ay toboggan soxla nañu formation loolu lépp mu nekk loo xam ne pour commune bi def ko dana jafe parce que ñun tamit dañu am yeneen secteur mais ñu bëgg état jàppale nu ba véritablement bu ñu defee li mu def li ba nga xam ne doomu ñaan dootul am dara lu mu ñee doomu Ndakaaru wala doomu cees parce que bu dee judd suñu suuf barkeel na bu dee jom am nañ ko kon lépp lu waaye di utu Sénégal ñu war nañ ko mën a am pour loolu am nag foo ñu tàggat suñu xalaat xale ba cër bii ñu yor tey ëllëg ñu ñëw yor bu bu ko raw te am naa ci yaakaar bu baax. waaw jigéen ñi ñoo ko wax je pense que loolu sax amul solo man enseignement bi ma ci tiire rek mooy xër bi jigéen ñi amoon pour taxawal centre bi parce que ci néeg lañ ko defoon yàlla dem ba xajatul ci néeg ñu indi ko amuñu fu ñu dem fii nga xam ne poulailler maanaam ngunu ganaar la woon ñu jël fi dugal fi xale yi mu nekk de conditions yoo xam ne am nañu xër waaye amuñu kàttan amul sécurité parce que boo gisee bâtiment bi xam ne vraiment daaneel rek moo ci war mais mënuñu ko woon parce que amuñu woon leneen bi yàlla indee lii nag ci mbaaxam ak sunu yéene ah lii véritablement euh, lu ñu mën rek mooy daaneel ko waaye ensegnement bi ñu ci tii rek mooy jigéen ñi xër nañ xër boo xam ne ku jël sa doom di ko dugal ci poulailler xam nga am na leneen am na leneen loo ci euh, séentu donc loolu vraiment ma leen ciy ñaax ambition boobu ñu amoon nañ ko am pour entretenir li parce que loolu mooy indi leneen ak leneen ak leneen parce que Ngoundiane lépp lu waaye di uti ci Sénégal rek bu ñu sañoon Ngoundiane royukaay lay jonti domaine boo ne